léegi nag parce que man affaire bi jar na xeeb quoi il faut nit ñi jàngal ko parce que man c'est ahurissant c'est ça qui théorisait le combat contre le système qui nous vendait l'antisystème en projet politique par une pirouette spectaculaire de l'histoire qu'il puisse retourner tey di propulser comme mel ni Habib Sy dont on connaît le parcours sulfureux et nébuleux loolu daf ma jaaxal quoi muy benn kii quoi muy benn aspect question bi léegi nag xam nga jeu bi moom li ñu man je m'en à li El Malick Ndiaye waxoon nee na benn candidat la Pastef am wala. mooy Ousmane Sonko. mooy seen mooy seen candidat A. ba Z ba Z. ba finalement léegi affaire yi dafa kii quoi mais Aram rë retenir la kon bu dee Habib Sy waa Pastef pare danañ ko mooy candidat bu gën a sérieux. waaw loolu moom dañ ci bàyyi xel bu baax a baax. kan Habib Sy. waaw parce que nag bu mag la du yàq moom bu ko. waaw bu dee bu dee ñoom ñoom pare nañ ko rek osé nañ pare na ko contre les de probité ak li ñu jaay Sénégal yëpp lu ñu wax ci sem yëpp kon il faut ñu tey ci ci kon candidature Habib Sy bi quoi ba loolu laa ci mën a wax en attendant quoi. waaw euh, Thierno laal na fu garaaw. ah Ibrahima Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. waaw hypothèse la la la teg. tamit Thierno dafa affirmé. xam nga ci saltemaan. non ci saltemaan bi te li mu wax nag léeg Euh, peut-être saltemain moo diis. mais xel xalaat laa jëriñ boobu moom fi mu waxee saltemain xel xalaat laa wax. foofu lañ ne. xel xalaat. Euh, li Thierno wax c'est à tenir en compte ñun euh, wax dëgg yàlla la waaj waxoon ña yoo nekkul ci seen ab tànn waaye ba nga ko déggee gis nga daan ci bàyyi xel man benn laaj la ma am mooy. est-ce que lii xew lépp épp épp épp est-ce que Ousmane yëg na ko ma laaj laa wax de dama ne parce que fa Ousmane nekk en kilifa bi. Hmm. kan moo am accès ca Ousmane kan mooy wax ak Ousmane laaj la rek ndax xel nag xalaat ma ne ndax lii xew yëpp. Ah, ci tànneef ci tànneef ci position loolu suñu seen mbiru bopp la waaw waaw ca tànn nag ca lépp laa wax ca loolu yëpp est-ce la communication et la bonne communication entre Ousmane ak ñi ko wër ak ña ko jege parce que fee mu nekk. Hmm. ñëpp amuñu fa accès ah. ca Cap léegi sax on parle de permis spéciaux pour nga. exactement maanaam gisee gis ba sax léegi dafa gën a jafe lu tax. Ah, moo tax may may wax ne. ca ca maa eh, moo tax ma naan la li xew nii yëpp. Hmm. est-ce que Ousmane yëg na ko. parce que au-delà de tout il y a l'organisation on parle de projet avec plusieurs personnes mais celui qui incarne ce projet-là où est sa place dans ce qui est en train de se décider est-ce qu'il est au courant c'est capital s'il est au courant je suis rassuré s'il est au courant je suis tranquille s'il est au courant je dis je dis foofu laay wax kilifa bi est-ce que bu dee dafa am ñu parrainé Habib Sy ak keneen ak keneen ak keneen ba si jomaa ba si ba si Basiiru Jomaay la ma wax est-ce que décision yëpp mun naa laaj kilifa bi fi toog. Hmm. naka est-ce que Ousmane yëg na yëpp est-ce que d'accord na ci yëpp. li ma moom duñ def lu Ousmane dogalul. Hmm. lu mu yëgul. ndax projet nañ fi mu ko jëlee mu ko indi. Hmm. te xam nañ ne du sacrifier projet bi mukk kon li ma lay rassurer di rassurer Sénégal yëpp ne yii nga gis li muy dox yëpp Ousmane Sonko moo koy doxal. ndax Ousmane Sonko it mi ngi Sénégal. xëy na mu ngi ci loxol yoon mais am na ay avocat am na ay soxnaam am na ay ñeneen ak ñeneen pour mu communication pour mu communiquer parti bi loolu difficile jafe jërëjëf mais daal li ma lay rassurer di rassurer Sénégal yi yëpp mooy Pastef du ñemewuñoo dogal lu Ousmane àndul jërëjëf ñemewuñoo dogal tamit lu Ousmane joxewul ndigal li jërëjëf c'est c'est important benn point d'achoppement la bu boo xam ni voilà dafa dafa nekk sama xel en mhm. passant donc euh, tout ce qui s'est décidé il est au moo tax keroog Baye Ass ma naan la yal na yàlla suturaal Ousmane ba bu mu juum ci choix bu fekkee ni egg nañ ci moom mu war a nekk ci position wu bañ a bokk mais position wu wax ne nañ tànn diw mhm. yàlla na ko yàlla suturaal ba bu mu juum ëllëg a tax ndax ëllëg dafa mat a sóor te Sénégal dañoo dund tas yaakaar ak war goo xam ni la yàlla xam doy na bi si des bàyyi Ousmane ak Abbas ak Thierno ak Cheikh ak ak euh, Pape Moussa ak kilifa bi ak Ndeye Arama ak ñi ñoo seetaan tournant bi ñu toll ñi ciy joué dañoo bare ñi ci nekk maanaam bu doon filmu acteur principal benn groupe benn kii synopsis sin sin voilà des figurants scénario nga xam. ay gangster ak <laughs> ay gang gang yu uute intérêt. yu uute intérêt. ah sauf que nag gang yi groupe de gang yi. Mm. am na ñu ñu seqal ñoo xam ne seen intention louable na nekk sénégalais yu baax am yéene ci réew mi am nu nu wanee nu nu taxawee hmm. ñooñu nag nanu wanee nanu taxawee xeex bi bare seen kaw léegi nag dem nañu ci xeex bi ak ak tout ce qui ba affaire bi xaw a def nii gis ci biir xaw a def nii bi hmm. faw ñun ñëpp mooy lucidité ba ma doon wax faw ñu lucide xool ba baax li ñoo def hmm. ngir ñu bañ a juumaat xulil xulil ba baax parce que bu dul loolu daanu juumaat maar day um si xam nga quest qui se passe qu'est-ce qui est en de se jouer quand on parle de l'alliance des États du Sahel c'est ça qui se joue <laughs> c'est ça qui est de se jouer c'est-à-dire ñu ngi ci beneen level Mohamed Bazoum du nangu na signer démission ah, <laughs> bana en fait loolu dafa bokk ci xeex bi parce que tant que Bazoum signé wul tubaab mën na mu yaakaar. lu ko signaloo. la signaloo Basou. <laughs> la ko signaloo ñu jaar bul dugg foofu bàyyi la dama bëgg a expliquer succès Masra Thiad. Ah, lu ko indi lu ko ñibbisi loo dama la bëgg a si na Côte d'Ivoire bàyyi ma wax maa la wax ak aw. dama bëgg a expliquer ne fi ñu toll nii bu ñuy wax waxi diw ak diw dañuy wax wala diw ak diw xam nga lu garaaw nag ci genre débat yi. Hmm. xam nga ci garaaw. léegi léeg nga yëg la diis la kawe loo xam ne doo ko mën a wax ndeysaan te te te da fi ne nii maa wax ko wax wax barke bàyyi lay ale xam naa ne ba ba dana rëy te te damay bañ coow topp wax eh, non du ma dugal sax mais dana doon mbumbaay ma kawe <laughs> ndax xel dana dem fa sore yàlla na yàlla suturaal usman Sonko mu bokk ci election yi ah. man moo ma gënal yàlla na yàlla suturaal Ousmane Sonko mu génn bokk moo gën a dal sama xel xanaa ma ak dégg hmm. lay moom lay moom man leeru ma ne moom laay votel de Ousmane Sonko waaye dama ne ci li fi tax gis ne ci taxawaay hmm. ak na mu taxawee ba toll fi mu toll nii fa ma doon waxee man waaw foofa wuy ma. fa ma doon waxee keneen ku dul hmm. woo ko loolu nga bëgg dama ne ci mbir mii. Hmm. li mu xeex nii ba toll fii fa ma doon waxee naan nanu toog nu ut pexe mu génn bokk. Hmm. moo ma gënal mu war a toog di tànn tànn boo xam ne kay toog. mun naa toog siis bi changé ka bëkk kenn du ko dëkk eh, <laughs> <laughs> si siis siis bi siis bi kasi toog bala mu seet toog lu nu wax mu ne waaw le président Macky Sall a signé entre les deux tours li concerne assises yi te àndu ci woon. Ah. ba mu toogee nan la def. waaw nañ waxati dëgg te yàlla tax. jël juróom yi ko ci intérêt wax xel xalaat laa jëriñ. Ah, réew mi léegi sax am na fu ñu toll. bu buñ fa tollee laa la wax hmm. na ku ne xalaatal boppam def li dal xelam voilà ay lii léebu léebu naqari te bëggoon naa ko sax yi nga wax dama ko bëggoon firi mais su ma ma nanu ñaan Ousmane génn moo gën yi def nii bàyyil Pa Moussa mu ñëw li nga wax mooy wax mooy dëgg eh, Ousmane Sonko na génn na bokk parce que bokk na waaw ñaan loolu dëggu parce que maa ngi gis gars yi succès masala mu ngi càdd waaw <laughs> Guillaume Soro mu ngi autour mais Ousmane Sonko est toujours en prison injustement voilà la différence Ousmane Sonko est toujours en prison injustement fële du place am ñu ngi lam-laame candidature am injustement juridiquement ñëpp xam nañ ne dafa war a bokk kon Baye Assane li mu wax moom mooy dëgg na euh, Ousmane Sonko bokk parce que boo xoolee ñu intervenir ñëpp ils ont parlé de jeu politique bon jeu politique première personne du singulier wala jeu politique. JEUX waaw. JEU. EU ah sans X. E ah, ma maa ci yokk X maa ci yokk X. <laughs> xam nga léegi <laughs> voilà voilà. ñaar yooyu bu mu ci mënti doon baaxul ci réew mi en 2024 on n'attend pas ça bu mu ci mënti doon du bi du po Sénégal moom moo euh, aspiré. à un pays développé prospère parce que xam nañ ne am nañ potentialité bi. donc kon voilà donc kon. Euh, li nit ñi namm ci Ousmane Sonko ce n'est pas la personne de Ousmane Sonko ce n'est pas le jeu de Ousmane Sonko le jeu non non loolu. Hmm. dafa am lu mu euh, voilà très bien justement projet am sénégalais yoo xamante ne gëm nañ ne lii mën na développer réew léegi bu doon même continue euh, boobu noonu projet keneen am na ko avec la même probité morale avec un parcours aussi exemplaire bu Ousmane Sonko nit ñi dañuy ànd ak loolu. bu ko nit di bëgg a jaay doole nit ñi dañuy taxaw. looloo fi newul dafa nank rek. non sama xalaat la laay laay wax donc kon tey lan moo tax bi ñu ne pluralité de candidat man dama d'accord ci loolu. ñu waxtaanee ko lu yàgg euh, cara daal pluralité c'est-à-dire jënnax bu bëggee gudd fan. day bëri pax day bëri pax comme que jaay doole lañ fi nekkee décision de taxaw nii.